بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi sant yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu ñoo ngi ñëwaat tey ci dars yi nga xam ne nii moom la doon xam ak Cheikh Oustaz Saïd Ly tey ñëwaat nañu ci même dars yooyu incha allah du ñuy def loolu ñaanal ko yàlla subhanahu wa taala yàlla dafa ko tawfiq xam ngeen jamono yi dafa tawatoon waaye ñëwaat na incha allah ci liggéey bi ñaanal ko yàlla yàlla dafa ko def incha allah su ko defee dañuy def lu dul dox ko micro bi incha allah ñu ànd dégluwaat incha allah dars yi kon sa tafadal mashkura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu xam naa ne li ñuy njëkk a def mooy jégglu benn remarque bu ma mbay woon léegi léegi ci téere bi mooy man li ma téléchargé septième bi mooy dars bi passé an ataarraf ala allahi min asmaihi wa sifaati te dafa mel ne yéen téere yi ngeen yor septième bi an akuna muminan bi anna tashri xaqullahi waxda kon dafa am ci téléchargement yi ñu téléchargé téere bi ñuy jàng ay njuumte yi ci am kon il faut ñu deltu ginnaaw tuuti rectifier njuumte boobu nga xam ne moom moo amoon ci juróomeelu tomb bi tey kon septième bi la ñuy jëlaat pour ñu yor enregistrement yi septième bi mooy li cheikh bi doon wax li tax chaque jour suñuy jàng téere yu mel nii ma leen di wax ne ñu def attention ndax dafa am ñoo xam ne ñoo ngi fi nekk ay jullit ba pare di baare lislaam dan fi nekk nekk ay jullit di baare lislaam loolu su ko ni déggee dina dina ci dina xaw a jommi mais jarul jarul jarul ñu ci ñu ci ñu ciy jommi wala ñu ciy tiit lu dëggu la ndax boo fekkee ay boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo tracé yoon wu leer naññ pour fexe ba jullit ñi am conscience islamique pour jullit ñi am réveil islamique pour jullit ñi delluwaat ci diine boroom xam-xam yooyu nga def ci ñoom ay téere ba nit ñi di leen daw di leen moytu yow da ngaa bëgg a freiner diine bi te xam ngeen ne fi mu nekk nii ci àdduna bi réveil islamique bi mouvement islamique yi daanaka àdduna bi yépp la lépp la yëngatu léegi nag ñii dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo bind ay téere yi nga xam ne dañoo yëngal àdduna téere bi ci la bokk pour fexe ba jullit ñi xam dund gi ñu war a dund diine bokk gi ñu bokk ci lislaam moo sax gis ngeen téere bi nu mu tudd nan la ko tuddee maza yaani intimaa yi fi lislaam bokk gi ma bokk ci lislaam lan lay tekki ñu bari ci ñun fi jàpp nañ ne bu ñu nekkee ay jullit suñu jullee jeex na jigéen ñi bu ñu muuroo jeex na terminé déedéet fekk moom dafa lay wax yow bokk gi nga bokk lan nga war a def moo tax juróom-ñaareel bi mu ne an akuna mu'minan gis nga chaque jour loolu la lay indil an akuna mooy baat bi njëkk ci téere bi an akuna mu'minan ma nekk ku gëm bi anna tashri xaqullahi waxda yoonal atte yàllaa ko moom gis nga fii soo ñëwee ci tawxid tey ci àddina bi tawxid ñu ne la tawxid ñett la tawxidul rububiya tawxidul uluhiya bi ci tegu tawxidul asma wa sifaat ñoom ñu mel nii dañoo bañ ñu ne tawxidul xaakimiya des na benn bu ñuy naxee din ko nëbb bañ ko génnee soo waxee ñu ne non ci bële pàcc la dugg fële fële fële di ko jéem a camoufler dañu war a wax nit ñi dëgg atte yàllaa ko moom jullit ñi bu ñu lànkee ne du ñu atte islam ay yéeféer la ñuy doon alxuraan bi dafa wàcc pour ñu atte woo ko wa man lam yaxkum bi ma anzalallah jàng nañ aaya yi fa ulaayika humul kaafiruun fa ulaayika humul zaalimuun fa ulaayika humul faasiquun yàlla ne inil hukmu illa lillah atte man yàlla maa ko moom loola la seex bi wax fii ne an akuna muminan bi anna tashri xaqullahi waxda dama war a gëm ne atte yàlla dong moo ko moom kenn waru cee dugg mais tey ci àdduna ban fan la ñuy atte woo islam Gàmbi gi ngeen dégg waa ji def barki dem république islamique dem leen foofu ngeen xool ndax di ngeen gis islam jullit dafa war a gëm ne sharia yàllaa ko moom moom kese kenn waru ci dugal làmmiñam léegi nag ñun fi da ngay dégg ku ne man gëmuma sharia sama yoon ci sharia man nangam laay déglu luñ ma wax loolu la jullit su nanguwul sharia yéeféer lay doon ndax sharia yàlla moo ko moom atte yàlla kese kese moo ko moom moo ko wax sunu borom daf ñu wax ay aaya yu leer naññ ci alquran Omar sax dafa rey nit koo xam ne dafa bañ atte yàlla Omar dagg bopp bi kon jullit na gëm ne sharia atte lii di atte yàlla moo ko moom luwaay yi ñuy tëralal pour ñu koy atte woo di fi dem bu dëgg bëccëg ci tribunaux yeeg dëkk bi loolu dafa weddi suñu diini ñun danoo war a nangu ne suñu amee problème suñu amee jafe-jafe yàlla moo ñuy atte kenn duñu atte ci tribunal yi waaye islam moo nu war a atte suñu boroom dafa wax ci alxuraan ne fala wa rabbik laa yuminuun hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima borom bi nee na bu ngeen jullee bëgguma ko su ngeen wooree bëgguma ko bu ngeen ajee bëgguma ko bu ngeen saraxee bëgguma bu ngeen jàngee alxuraan bëgguma ko lu ngeen mën a def ci diine duma ko nangu lu dul da ngeen di àttewoo seen diggante la ca lënt ngeen indi ko ci man hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum la lënt seen diggante ñagg-ñagg yi ngeen am ngeen indi ko ci yàlla ak yonent lu yàlla wax noonu la lu yonent wax noonu la ba pare saa yu ngeen ñëwee ba yàlla ak yonent bi atte leen du ngeen am ñagg-ñagg ci seen xol maanaam dara du leen métti da ngeen di nangu ko yusallimu taslima kon su keroogee la ñuy gëm yàlla moo tax seex bi ne fii an akuna mu'minan ñiy juut baaraam naan seen pas-pas yu wérut dëgg-dëgg bu ñu jàngoon téere yi danañ xam ne ñoom ñoo wérul mais ñii ñu wér këng lañu mu ne laa yajuusu taaddiihi du dagan mukk ñuy dëpp atte yàlla di dëpp di jëfandikoo yëfu keneen du dagan ci ñun yàlla wax ñuy jël waxu keneen ay waxu Jean waxu Paul ak waxu Samba ak waxu Mademba alquran moo ñu wax ne la ma kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul xiyara min amrihim warul jullit bu góor warul jullit bu jigéen yàlla ak yonent ba wax ba pare ñu naan waaye yàllaa ko wax mais xam ngeen ne escient yi monde bi fi mu toll patatatata tutututuru non daganul ci ab jullit su yàlla waxee rek jëfee su yonent waxee jëfee waaye ñu ne yàllaa ko wax mais nag xam nga temps bi temps yi lu mu laaj ay xam nga kër ah ah bi wiir yi di cak-cakal yàlla lu mu wax noonu la man saa fal yumin wa man saa fal yakfur da ngeen di gëm rek mbaa ngeen weddi mais waxu yàlla kenn waru ko bàyyi ndax ay bànneexu nit ndax bëgg-bëggu nit ndax bëgg-bëggu état wala bëgg-bëggu réew wala bëgg-bëgg benn nation boo xam ne nee nañu dégg naa barki démb benn nasaraan di attaqué Yaaya Jammeh ne dafa soof def Gàmbi état islamique mel ne moo ko moom suuf kon liñ ko meree mooy diine bi c'est ça le problème du dagan yàlla wax ak yonent ñu bàyyi li yàlla wax ak yonentam li mu ñu indil nañ ko dund nañ ko àtte woo ñu sànni ko ne waxuma sax ñu bàyyi ko mais tey ku bëgg ne li yàlla wax nañ ko def léegi ñu takkal la benn garaat léegi ñu takkal la benn ticket tuddee la benn tur mu ne wa annahu yumkin lil aalimi al muslim an yajtahida fi istinbaati al ahkam fi itaari ma sharaahu llah dana dagan mën naa nekk ci borom xam-xamu jullit atte yàlla yi yàlla atte moom nag mu daal di ñëw ci atte yooyu génne ci loo xam ne day jëriñ jullit ñi loolu moom mun naa nekk yàlla nee na sàcc bu sàccee na ñu dagg loxo bi borom xam-xam yi ñëw ne ah nañ def ndànk balaa ñuy dagg loxo bi dañuy xool nangam xool nangam xool nangam benn nañ xool taux bi mu sàcc ñaar nañ xool lu tax mu sàcc voilà ah nañu xool aussi ki ñu sàcc alalam ndax dencoon na alalam borom loolu istinbaat borom xam-xam yi chaque jour yàlla day wax nangam waaye ñoom ñooy ñëw di ñu leeralal li yàlla wax naka lañ koy attewoo loolu dina dagan waaye yàlla wax ba pare ay nit ñëw ne la dëgg la yàllaa ko wax waaye jamono boobu weesu nañ ko quoi mooy comme lii ngay dégg nii jigéen na muuru ñu ne non loolu weesu nañ ko di miiru ni mel na ay saaku pombiteer non paratara ah ah dé déedéet muuru yàlla moo ko santaane ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen misaal boobu rek laa ci joxe waaye bëri na saa yu yàlla waxee kenn du ne jamono bi weesu na ko déedéet yàlla mooy borom jamono moo tax kat doom lu mu nu indil du romb jamono jamono du ko romb mukk abadan lu jamono dem dem dem dem li yàlla indi day ànd ak moom kenn du ñu ne jamono boobu dafa passé kenn du ñu ne léegi weesu nañ fi kenn du ñu ne nangam ak nangam dañuy deltu bu leen ñu delloo ginnaaw léeg-léeg nga wax islam fenn ñu ne yéen da ngeen ñoo bëgg a delloo ginnaaw quoi instant bi avancé nañ ba pare islam du delloo ay nit ginnaaw ndax yàlla moo ko moom yàlla moomu moom islam moo moom nit ñi moo sàkku ci nit ñi nañ dund islam moo tax islam du delloo ay nit ginnaaw nit ñi ñoo bëgg a deltu ginnaaw mais du l'islam benn jigéen dafa jóge union soviétique ñëw Sénégal di def formation di jàng français université am ay mbokk yu mbokkal classe yàlla def mu dëkk parcelle moom ku jigéen kooku nee na buy dem université day romb nit ñi ci tali yi ñu toog grand place yi mu ne vraiment islam day tardeel dëkk gaa ñi ne ko lu tax mu ne xoolal nit ñi toog kenn nanguwul liggéey li amul suñu dëkk benn waaye ne ko tooñ nga lislaam mu ne lu tax nga wax loolu mu ne ko ñi ay jullit lañ tooñu ma islam islam bi ñu gëm moo leen yaa fuusula moo tax ñu bañ a liggéey mu ne ko tooñ nga lislaam kooku ne ko tooñ nga lislaam mu ne ko naka laa ko tooñee mu ne ko dëkk bi nga bàyyee ko am nay jullit wala amul ay jullit mu ne am na kay mu ne est-ce que jullit yooyu nii lañ mel mu ne déedéet mu ne kon tooñ nga lislaam maanaam kenn du jël melokaanu ay nit ni ñu deltoo ginnaaw ñoom nga koy tuumaale lislaam mi ngi mel ne tey réseau yi am ci dëkk bi réseau ay réseau sigil jigéen ay fippu ay yeewu yeewi da ngay dégg ñu naan dañuy souffriral jigéen kan la bu ngeen déggee ñu ne dañuy sonal jigéen dañuy agressé jigéen dañuy napp jigéen léegi kan moo def loolu tontu bi mooy laaj bi mooy loolu kan la ñoom suñ koy wax islam la ñuy attaqué waaye du ñu ñeme tudd baat bi mais ca kaw loolu la mais léegi ñun dañ leen war a laaj waaw léegi bu ñu ne dañoo sonal jigéen Sénégal dañoo war a laaj kan la dañoo dañuy mettital jigéen ñi kan moo leen mettital kan la du diine bi diine lim wax ci islam suñ ko defoon jigéen jigéen du sonn yàlla nee na même boo ko yore imsaakum bi maaruf aw tasrihum jigéen boo ko yore yàlla mu ne yoro yor bu rafet soo munta yor yor bu rafet nga bàyyi ko bàyyi bu rafet yàlla bi muy wax nañ dund ak jigéen ñi lu mu wax wa ashiruhunna bil maaruf na ngeen dundandoog ñoom ci njekk kon kay diine boobu diine bi fekk ñu leen di rey mu ne bu leen kenn reyati diine bi fekk ñu leen di donn mu ne buñ leen donnati ñoom nan donn kon kay kooku sonalu leen ah kon diine boobu moo leen protégé diine bi fekk ñu def leen ay moor yombale moor sa juróomi dërëm loolu lañ defoon jigéen ñi yàlla ñëw ne kenn amul droit sax teg teg loxo seen kaw kon nag chaque jour nañuy bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne moom la gaa yi di wax kon du dagan ñu atte woo yeneen atte yu dul islaam waaye dana dagan lil aalimi al muslim ci borom xam-xamu jullit gis nga lil aalimi al muslim borom xam-xamu jullit foofu dañ fa war a taxaw ndax Sénégal dafa bëri ay borom xam-xam chaque jour ngeen gis ci télé bi benn waaye bu ne man dama am xam-xam ñëw gars yi ne ko borom xam-xam nga waxuma borom xam-xam nga sax yow kilifa diine nga foog nga waxal ñu ci lii mees lu ci yàlla wax mu ne dara nekku ci day taaral jigéen hadis bi naan ku meesu yàlla rëbb la hadis boobu wérut ndax yonent du rëbb nit muy dox déggu leen loolu dégg ngeen ko fi dégg ngeen borom xam ñoo xam dañuy ñëw ne ñu di leen borom xam-xam ñu ne booy takk jabar da nga takk ñaar deux deux ngay takk muy ñaata 4 après nga takk 3 3 muy ñaata après nga takk 4 4 loolu ñaanga la masna mooy 2 2 wa sulaasa 3 3 wa ruba 4 4 ñaata jabar la est-ce que noonu la yàlla waxee aaya bi xam ngeen yàlla waxee ko noonu firiwu ko noonu yàlla bu ne takk leen ñaar takk ñett takk ñeent mas naa ñaar ñaar wa sulaasa ñett ñett wa rubaa ñeent ñeent nga bëgg a jël nas bi yóbbu ko bàyyi yonent bi na mu ko firee naroo dund diine yonent alxuraan bi yàlla wàccee ne julli leen est-ce que da ngeen gis ci alxuraan tisbaar ñaari rakk ñeenti rakk fii yéen ñi toog nii góor ak jigéen dama leen di laaj yàlla moo ñu sant julli wala santuñu ko dégguma kenn tontu ma mënu ko sant est-ce que gis ngeen ci suba ñaari rakk ci alxuraan est-ce que gis ngeen ci tisbaar ñeenti rakk tàkkusaan ñeenti rakk timis ñett gee ñeent am na ci alxuraan waaye boo ñëwee ci sunna yonent bi moo lay wax suba ñaata la tisbaar ñaata la tàkkusaan ñaata la timis ñaata la gee ñaata la noonu alquran toppee sunna yonent bi toppee di leeral yenn aaya yi noonu la ñu leeralee aaya takk jabar tax ñu bu ko sànni fee jëlee nga gis benn sëriñ bu yor quatre-vingts jabar benn femme dañ ko takk États-Unis benn waay moo ko kidnappé takk ko femme bi moo ma ko nettali mu ngi ci sama WhatsApp bi effacé effacé guma ko sëriñ bi day jógee Sénégal di dem États-Unis doomu ndaw si nekk taalibe bi saa yu sëriñ bi yegsee doom ji ñëw ci yaayam ne ko sunu sëriñ bi ñëw na femme bi def ay taraanga xam nga sénégalais dafa baax def ay taraanga jox xale bi xale bi yóbbu ay boolu ginaar ak yu kenn xamul su ko defee ba benn bis mu ne ko yow yaay bi su ne nga yónnee sëriñ bi taraanga sëriñ bi neen daf la bëgg a gis femme bi nekk di riyanke njool ba ci kaw ñëw sëñ bi gis ko rek jommi ne kii am na jëkkër ñu ne déedéet mu ne may leen ma ko wax ndaw si dama lay tàkk ndaw si ne ko déedéet man taluma sëy bàyyi ma fii xaalis laay ut si waa ji wax ba sonn ndaw si bañ waa ji ñibbisi di woote guddeeg bëccëg ndaw si bañ mu laaj ndaw si fu mu dëkk Dakar mu wax ko ndaw si den waa ji dem ci papaay ndaw si ne ko dama bëgg sa doom mu ne ko xaar ba ma laaj sama doom mu laaj ndaw si bañ papa ji ne ko mënuma laa may parce que dafa bañ mu toog 5 jours woo ko téléphone ne ko suba na ma lay takk ndaw si ne waaw mu dellu ci papaay ndaw si ne ko damay takk sa doom mu ne ko daajoon naa ko mu ne déet mu ne laajaat ko nee na ma waaw papa ji woo ndaw si ne ko yow loo wax ni gis nga bu ma fontoo du ma sa morom mu ne ko ah man de nee naa ko waaw ba pare xaw ma sax lu ma wax loo waaw ñu takk ndaw si jógee États-Unis ñëw fii ci ak xew-xew yu fi xewoon xew-xew diina yi ñu waxoon moo fi xew mu nekk mu ñëw ñu dalal ko ci benn château mu nekk fa nee na ay góor rek laa fa gis gisuma jigéen mu ñibbi def photo yi ci Facebook bi mu yaakaaroon ni daal dafa am succès parce que kilifa diine gu mag la sëyal nit ñi commencé ko saboté ñi naan ko ne yow xam nga ñaata jabar nga nekk yow yow ban rang nga nekk loo nekk rang yow aawa nga wala ñaareel nga wala ñeenteel nga mu ne benn waaye ne moom yow soixantième femme nga mu ne kenn ne ma yow quatre-vingt quatre-vingtième femme nga mu ne keneen ki ne ma yow moom centième femme nga centième mu ne wax yiñ may wax ma tiit mu ne ma woo waa ji téléphone ne ko waa yow ah nganale gi de neex na nganale nga ma trop ndax daal fa nga ma teg fa nga ma dugal kër gi nga ma dugal gisuma fa jigéen man kenn cundum ak ay góor lu ma soxla ñu def ko waaye nag dama bëgg laa laaj man ban position laa nekk ah voilà wala ñaareel laa wala ñetteel laa wala ñeenteel laa mu ne ko loolu amul soxna amul solo soxna nga rek soxna nga ne soxna yi amul solo femme bi ne ko déedéet soxlawuma loolu dama bëgg nga wax ma lan laa nekk mu ne ko amul solo dama nekk ak ay gan dinaa la tontu coupé femme bi di ko woo du jël mu yabal bëkk nii wax leen ak ndaw si ñooñ di woo femme bi naan ko texe nga ku mel nii ku mu takk sa baay texe na sa yaay texe na say doom texe na say mbokk texe na ku la gis texe na bul wax lan texe nga talal loolu yooyu la ñuy naxe nit ñi ku la gis texe yonent bi abu jahlin gisoon ko te ma nga safara tabbat yada abu lahab gis yonent bi te ma nga safara ah ibrahima gis baayam baayam a nga safara dañuy nax rek dañuy nax sénégal nax yu métti ku la gis texe loolu daa am fen ndaw si nee na daal man lekkatuma naanatuma nañ ma wax lan laa kenn nag du ko wax lan nga jamais ku woote daal looy wax noo bàyyil yooyu yow xam nga ne kii moom la nit ñi wër yow boo ci dajee jàppal santal yàlla su ne waxuma loolu wax leen ma ñaata laa nekk noonu la ndaw si def ba jox sama numéro mu woo ma téléphone di ma wax histoire bi xam nga lan mooy ndaw betteel benn waay woo ndaw si ci ci ci kër googu ne ko yaa ngi ah yow lan la xanaa xamuloo ne kii maamam amoon na amoon na cent quatre-vingts cent quatre-vingts jabar cent quatre-vingts jabar nu ko nit di yore ci àdduna cent quatre-vingts loolu la maamam amoon nga nekk fii naan yow ñaata xaw ma léegi fu ñu mujjee mais ndaw si moom waxoon naa ko ne sa yoo ci lu araam nga nekk ku fi am lu ëpp ñeenti jabar ñeneen ñi da ngay njaaloo ak ñoom ndax sharia loolu la wax jabar ñu ngi ko takk ci ñeent léegi nag li waa ji wax fii lil aalimil muslim borom xam-xamu jullit kookooy ñëw ne lii lii la ji nit ñi jël waaye ñoo xam dañuy jël aaya yàlla yi di ko traduire nu mu leen neexee bu yàlla nee ñaari jabar ñu ne ñeent la ah bu yàlla nee sàngar araam na ñu ne bu balaa mu yëgg sa put mu nekk meew bu yàlla nee yàmba araam na ñu ne cuuraay màkka lañ koy soppi yooyu ay mbir la yoo xam ne bu yàlla ne alxuraan ñu ne alxuraan ràkkal la yooyu ay mbir la yoo xam ne mbokk yi dañ ci bàyyi xel boroom xam-xam bi nga xam ne mooy day góorgóorlu def istinbaat di ballalu aaye yi yàlla wax ñu leen wala yonent bi wax ñu leen ñun mënuñu ko dégg boroom xam-xam bi ñëw dugg ci téere yi dugg ci téere yi dugg ci téere yi ba firil nu ne nu lii la boroom xam-xam yu mel noonu ragal yàlla gu mel noonu loolu la waa ji wax ne loolu dagan na nit def ko ci atte yàlla yi yàlla ne nii la nit ñi mënuñu dégg loolu waa ji ñëw ah comme ni yàlla li mu wax ne wa atimu siyaama ila leyli su ngeen dogee su ngeen xëddee na ngeen continuer koor gi ba guddi ñëw boroom xam-xam yi ne waxul guddi mais timis la wax bu timis jotee guddi jot na waaye xam nga ne boo déggee nas aaya bi kese wa atimu siyaama ila leyli na ngeen matal koor gi ba guddi leyli mooy guddi waaye borom xam-xam yi nee na mu ngi mu ngi timis gis nga loolu lañ bëgg ci borom xam-xam yi ñu ñuy jegeel atte yàlla yi pour ñu mën ko dégg loolu mooy al istinbaat su ko defee nee na loolu dina dagan ci atte yàlla yi waaye waxuñu koo xam day ñëw di ko bafuyee yàlla ne ñaari jabar mu ne déedéet fukk la waaw yàlla ñu ne yàlla ne xeesal araam na ñu ne déedéet jigéen lu ko taaral bu rafetee dagan na waaw benn waaye mos na ma wax loolu loolu nag temps bu yàgg la ci benn daayira bu ma bokkoon ku ñëw guddi àjjuma borom xam benn oustaz ñëw def waxtaan ba pare ma posé question ne ne daayira bi ndax dañuy bàyyi jigéen ñi ñuy mees di xeesal président daayira bi daal di jël micro bi mu ne sëñ bi nee na jigéen ñi bu ñu leen teree xeesal ak meesal daayira bi du am nit. sëñ bi nee na jigéen ñi bu ñu leen teree xeesal daayira bi du am nit nañ bàyyi ñu xeesal nañ bàyyi ñu meesu ma ne sëñ bi li mu wax la ñu war a def wala li yàlla mu wax la ñu war a def moo tax ba yàlla defee ma génn ci ñu ne ma yow xamoon nga ne di nga génn parce que sëñ bi moo yëlbatu nga génn sëñ bi moo yëlbu loolu de lañ ma may ñu ne ma sëñ bee yëlbu ma rot ñu ne ma ñu ne ma yow jafandu woo woon sëñ bee yëlbu nga rot kon alhamdulilah rabbil alamin waaw yàlla nee na wa maxtalaftum fiihi min shay fa hukmu ila allah gis nga wa maxtalaftum min shay saa yu ngeen wuutee ci dara ñii ne lii ñii ne lii lu ñuy def mu ne fa hukmuhu ila allah na ngeen dem ci yàlla mu àtte leen léegi nag lii mooy suñu problème Sénégal da nga naan nii ñin ñi ne nii soo ne kaa leen dem ci yàlla ak yonentu ñu ne déedéet parce que bëgguñu lu leer ma joxe misaal rek julli xabdu def nii ak julli wàcca loxo fii am nañ ci problème wala amuñu problème am leen di laaj lu tax nangu tax du leer lu tax du leer c'est parce que nangu ñoo ñëw ci yàlla ak yonentam woor nit ñi woorandoo wala wooreendoo am nañ ci problème wala amuñu problème ah lu tax lu tax ñu am problème parce que nangu ñoo ñëw ci yàlla wax ak yonentam muuraay jigéen muur ak bañ a muur am nañ ci problème wala amuñu problème yéen dafa mel ne ñi bañ a muuraay ngeen àndal bu ngeen tontu am nañ ci problème wala amuñu lu tax ñu am problème parce que dañoo bañ ñëw ci li yàlla wax ak yonent yàlla dafa ne jullit ñi bu ngeen wuutee pour ngeen xam ñan ñoo nekk ci dëgg fa hukmu ila allah atte bi ñëw leen ci yàlla su ngeen ñëwee ci yàlla rek mu daal di leen di leeralal ñun ñaar am nañ problème ñun ñaar ay jul ay jullit lañ mais neex na ñoo atte nañ taxaw fii rek ñu ne ñaar ñi seen mbir lu ci yàlla wax ak yonent ñu noppi boroom xam-xam yi ne lii la ci yàlla wax ku ci nekk ci ñun dëgg xam ne maa nekk ci dëgg ki nekk ci caaxaan mu xam ne moo nekk ci caaxaan mu daal di dellu de loolu mooy mbir mi sunu borom jalla jalaaluhu moo ñu orienté moo ñu delloosi mu ne ñu wa maxtalaftum fiihi min shay lépp lu ngeen wuute nag lu mu mën a doon fa hukmuhu ila allah atte bi dellu leen ci yàlla zalikum allahu rabbi wa rabb rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi anib kooku ñuy dellu mu ñuy àtte kookoy sama borom zalikumullah rabbi kooku indil ñu sharia kooku nga xam ne bu ñu wuutee ci moom la ñuy dellu mu teg ñu ci yoon kookoy sama borom mu ne alayhi tawakkaltu moom dong laa jox sama mbir wa ilayhi unib ci moom laay delluwaat jullit bu gëmee lii noppalu na soo gëmee ne yow lépp loo war a def ci yàlla la loo war a wax yàlla la loo war a jàpp yàlla la loo war a bàyyi yàlla la nga noppalu saxaaba yi ba ñu gëmee lii sharia bi ne yàlla kese la dañoo noppalu amatuñu keneen ku ñuy bokkaale ak yàlla da ngeen xam ne atte atte ku dul yàlla bokkaale la atte woo lu dul yàlla li mu wax yaa ngi bokkaale parce que da ngaa bàyyi yàlla li mu wax dem jël loi laïcité laïcité bokkaale la est-ce que xam ngeen loolu imam ali ndaw tëjewuñ ko lu dul xutbaam yu tàng yi muy attaqué laïcité loolu kese la soo jëlee téeméeri conférence am 99 yëpp laïcité lay attaqué nar a gars yi dañ ko yàgg guuxal loolu kese la ñi xam-xam nañ mbokk yi boobu mooy tomb bi nga xam ne moom lañ tëboon su ko defee suñu darsi tey moom la ñuy tàmbalee ci an ataxida ara asalaf awla bittiba dañoo war a gëm ne gis-gisu mag ñi yenn saa yi nga dégg Sénégal ñu ne mag ñi dëgg la de waaw mag ñi nag ñoo xam waaw mag ñi lañ war a topp waaye mag moo gis mu mag am na mag am nga mag voilà am naa mag sunu mag yi fii am nañ mag beneen bi mooy aara u salaf saa yoo déggee salaf lan lañ ci jublu mooy saxaaba ya lan moo tax boroom xam-xam yi ne gis-gisu saxaaba yi lañ war a jël ñun jullit ñi bu ñu amee problème lu tax damay laajte lu tax loolu lu tax ah ñoo dundoon ak yonent bi ñoo dundoon ak yonent bi ñoo xam yonent bi lu mu doon def ñoo xam yonent bi nu mu doon lekkee ñoo xam yonente bi nu mu doon naanee nu mu doon soloo nu mu doon duggee nu mu doon génnee nu mu doon nekk ak nit ñi nu mu doon jullee ndax ñoom yonente bi day gis nii def nii ñuy xool moo tax ñu ne balaa ngeen fay nekk yéen di jël seeni xalaat ngeen jël xalaatu saxaaba yi wala ndax ñoom ñoo fekkee woon mbir ma olof yi dañu ne ndund tëf boobu di nekk ci biir ndox mi ñu ne moom mbott duñu benn li tax moom mbott duñu benn ñu ne moom day naan buy naan ca ban ba lay dem ca ban ba mbonaata xam la ca déeg ba moom mii naan ba ca ban ba loolu la waykat yi di way mbonaata xam la ca déeg ba moom mii naan ba ca ban ba buy naan du taxaw ci kaw naan waaye day dem ba ca ban ba fa ndox mi jóge mu doog a naan kookay moo la gën a xam li nekk ci ndox mi saxaaba yi ñooñu gën a xam li nekk ci islaam bi ñooñu gën a xam li wir ndax ñoo fekke woon démb ndeysaan allahu akbar Hassan ibnu Saabit dafa toog ci jàkk ji daal di wax ñaari baytu way rek benn waay attaqué ko haram haram li ngay wax haram na mu ne ko tuf jógal fii man ma daan wax lii ku la gën toog fii terew ma tey nga bëgg maa tere lii dama ko daan wax ku la gën toog fii terew ma kooku kan la Muhammad tey ma bu ko fee wax nga naan ma jógal fii yow yaa fi war a jóge waaw parce que moom yonent bi dafa fekke woon jamono muy wax waxam yooyu te yonent bi terewu ko kon li tax ñu ne nañ jël aara u salaf ñu ne awlaa bi tiba loolu moo gën a yey ci ñu topp ko imaam ahmad day wax ne ma jëfandikoo hadis bu wérul moo ma gën ma def sama xalaat ma fekk lenn ma bëgg cee def dara ma fekke lenn bëgg cee def dara xawma lu ma ciy def ahmad nee na ma dem jël hadis bu wérul ma jëfandikoo ko moo ma gënal ma dem def sama xalaat ndax hadis bi dañ ne wérul waaye ah nee nañ yonent bee ko wax waaye dañ ne wérut kon gis nga mu ne xasman li maddati taawil wa taatil loolu nag lan moo ñu ci dugal jël aara u salaf jëfandikoo ko daf ñuy dimbali ba ñu mën a tëj buntu guddal ak nuru nuru la te du moom wala éliminer te waruñoo éliminer gis nga bu ñu demee suñu xalaati bopp tey jii ni ñuy demee ci dëkk bi nii suñu xalaati bopp tey bu ñu bëggoon xam ay gàmmoog ay yu bëri yu ñuy def ci réew mi dagan na wala daganul dañuy dellu ca salaf am na benn xutba jumaa bu ma defoon géej waaye man maa laaj ay question ci gàmmu gi nekkuma fa naan gàmmu bi daa laag war nañ koo def ak waruñu ko def ay question la posé maa ngi leen koy laajaat yéen nit benn tablette laa ci dencoon pour joxe ko cadeau ba léegi tablette baa ngi kër ga ku ko trouvé fii samedi ma indil la ko mooy yonent bi ñaata yoon la gàmmu bindal première question makka la gàmmu woon wala Médine gàmmu googu ñaat yan woykat la yonent bi invité woon pour ñu woy ko yan buur la invité woon ñaata nag la reyoon ñaata gëléem ñaata xar ñaata ginaar ñaata kanaara la yonent bi rayoon mbana yoon doon togg ñaata la mbana yi buñ ko rangalee di ko togg waaw lool loolu laaj bi la ay laaj la su ngeen paree ku rag rek tablette la bu rëy rëy mu ngi kër ga ku trouvé jaru sax ngay ñëw jox joxal oustaz question yi ma envoyé ko mu jox la sa cadeau bi waaw daaw laa ko laajoon ba léegi amaguma tontu lan moo tax léegi ñu am problème ci yu mel noonu parce que duñ dellu ci salaf suñ dellu woon ci salaf yi ñu xool yonent bi mu fi jógee kan moo ko remplacé woon Aboubacar ñu ne Aboubacar yow lu tax bi nga remplacé yonent bi yow gàmm woo bi Aboubacar demee xanaa gars yi dañ ne Aboubacar yow da ngaa juum yow da ngaa juumoon baal nañ la demal léegi Omar yow yaa ñëw Omar yow Omar yow ñaata yoon nga gàmmu bi nga remplacé yonent bi ñu ne ah Omar tam dafa juumoon kon ñu baal Omar ñu ne waaw Ousmane yow ku baax nga bi yonent bi demee yow ñaata yoon nga gàmmu ñu ne kooku tamit dafa juum ah kon nañ jël Seydina Ali ñu laaj ko moom it ñaata yoon moom it la def kon moom tam dafa juum ba kañ lii moo tax borom xam-xam yi ne aara ussalaf awla bittiba gis-gisu ñañu jiitu woon démb suñ ne ñañu jiitu woon démb nag bu leen yaakaar ne ñi may wax fi mooy ñi fi jógee démb déedéet mooy ca sahaaba ya ñooñ ñooñu jiitu woon moo tax borom xam ne ñoo ne law kaana xayran la sabaquna ilayhi ñooñu lu ñu bàyyi rek ñun dañ ko war a bàyyi parce que bu doon jàmm la ñooñu jiituñu ci ndax ñooñu ñooñu gën a bëgg yàlla ki ñooñu gën a bëgg yonent bi waaw jël ñooñu la ñu jël mooy jàmm ñooñu la ñu jëlul woon ku ko jël dugg nga ci taawil lan mooy taawil gis nga mooy li xew tey ay gis yàllaak man yàlla laak yàllaa ngi fépp ak loolu mooy taawil di taawil yàlla taawil di ko def noo xam ne melul ñun man yàlla laa man damay gis yàlla gis yàlla di yuuxu ci mbedd yi yàlla koo gis doo nekk ci mbedd Macky Sall bii rek ku mu recevoir boo xëyee doo nekk ci mbedd mi naan gis naa Macky gars yi dañuy rang yow tamit pour gis la Macky mii laa wax su ma ko gisoon du ma ñëw fii naan leen gis naa ko da ngeen di ñaan audience pour gis ma waaw waxuma laa ku gis yàlla maa ngi léegi ma wax leen lu leer yàlla ko gis doo nekk ci mbedd allahu akbar léegi-léegi lañ doon jàng alxuraan léegi lañ doon tafsir ci yàkka ji wa huwa yutamu wala yutim yàlla mooy lexale kenn du ko lexal parce que yàlla soxlawul lekk léegi nag nga ne yow yàlla nga te da ngay lekk yàlla nee na man du ma lekk yàlla du lekk ah biñ ne Isa yàlla la yaayam yàlla la yàlla dana ne yéen xanaa da ngeen a feebar xanaa xamu leen ne yaa Isa ak yaayam dañuy lekk cere baase boo reeree cere baase bu saf sap tiga dege ak ñebbe après fu muy reer fu muy feeñ 24 heures fu muy feeñee waxuma nga lekk nga waxuma nga lekkantu de nga lekk ci ba ni këj 24 heures après yàlla day def loolu moo tax yàlla bi gars yi ne Isaa yàlla la yaayam yàlla la yàlla mu ne ñoom ñaar dañuy lekk de te lekk xam ngeen fu muy fu muy feeñee lekk am na cooki feeñ waaw boo tiimee ci ginaar gi lekk ba suur après am nga am na fu muy finwe wa taatil taatil mooy éliminer dafa am yoo xam ne ci diine dafay war ba pare boo comprendre charia nga dem éliminer ko fekk def nga musiba fekk ci diine bi la bokk léegi nag lii ñaari yal mooy ci ñu musal mooy ñu jël aara u salaf tey ji di nga gis ay téere yu baree bari wala ay nit di dugg ci musiba yoo xam ne li tax ñu dugg ci mooy ñàkk jël aara u salaf mu ngoog mu ne wali tafwidi ilmi hadihi almaani ila allahi tabaraka wa taala wa anna tawilat alxalaf la tujibu alxukmu alayhim bi kufri wala fusuq gis nga di jël di xuus ci yenn xam-xam yi ci yàlla tabaraka wa taala di ta'wil li mu lay jural mooy musiba ngay dégg fii alif lam mim salaf yi bu ñu koy firi ñu ne allahu allahu alamu bi muradihi yàlla xam lam ca nam fii tey ci sunu réew bu koy da nga ne alif al asma ah al alif al qalam laam al asma mim al mim daad nga gis fii ay nit di ko firi ci loo xam ne yonent bi ñemewu ko woon biñ ko laajee lu mu firi mu ne yàlla moo xam lim ci jublu moo gën a maandu léegi nag bu nit ñëwee fii ne da koy firi wala moom da koy leeral moom xam na lépp moo xam lépp kooku daf ñuy nax loolu moo tax aaraawu salaf moo gën a yell ci dugg ci yenn détails yi mu ne taawilatu xalaf xalaf mooy ñi mujjee ñëw seen taawil yi ñuy taawil ah laa tujibul xukmu alayhim du waral atte ci ñëw kaw ñële dañuy jàpp ne ñun lu ñu atte atte atte atte ñoo raw Aboubacar ñoo raw Omar ñoo raw Ousmane ñun ñoo gën a dégg ñooñu alxuraan bi ñoo leen gën a dégg diine ji ñee dañoo tardé ñun ñoo avancé ñun loolu lañ bëgg a wax déedéet ñàkk dégg diine kese la waaye du leneen waaw saa nga dégg ku ne diw dégg naa benn ñaan benn ñaan bu Souleymane ñaan benn sëriñ di ko critiqué ci Sénégal mooy li Souleymane waxoon rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahad benn sëriñ nee na Souleymane lim def dafa juum warul wax loolu bu ko ñaanuloon ma ñaan ñaan bu ko gën a doy waar kala yooyu nu mu day lool lool si inna lillahi yal na ni yàlla dimbali waaw mu ne wala tastadii hada nisa at-taawil baynahum wa bayna gayrihim qadiman wa hadis mu ne bu ñu déggoon rek dëgg-dëgg àtte salaf yi kon du jural xëccoo xëccoo bu yàgg diggante saxaaba yi lañ war a topp wala ñi mujjee ñëw lañ war a topp déedéet saay ki fekk mbir mi lañ war a laaj imam malik nee na fekk naa ay kàngam toog ci jàkk yonent bi wéeru ku nekk naan yonent bi nee na mu ne dama leen a romb jàngaluñ ma ñu ne ko xanaa da nga feebar nga gis koo xam ne dafa toog naan yonent bi nee na moo ma wax ma dégg kooku kay dëgg-dëgg mu ne waaye damaa romb ñoo ñu ne lu tax mu ne ñooñ dañ doon dégg rek man nag damaa dem ci ñi nga xam ne dañ doon dégg di xool di bind ma jàng ci ñooñ xam nga kii dégg di bind ba pare di gis kii wax ak moom kooku sawaay moo gën a wóor ak ki nga xam ne dafa wax rek kapte nga dem imam malik loolu la wax fekk naa ay ponkal ñoo xam ne dañoo gis yonent bi wéeru ci pied jàkka ji naan maa gis yonent bi mu ne mu ne dama leen a romb jàngaluñ ma ñu ne lu tax mu ne daawuñ bind man dama daan dem ci ñi gis yonent bi muy wax ñuy bind ñoo ñoo ma jàngal kon kay kooku lu mu la wax lu leer la waaw kon diine ji kenn du ko làmbatu diine ji duñ ko làmbatu dañ koy jàng gis nga loolu ñu naan sol ak nangam nangam ay waxi kese la ak di yaakaar tamit nit Sénégal lépp ci seen diine mooy yaakaar nit kii kat sikkimam bi kii kat santam bi kii garaam mbubam bi kii kaalaam gi kii mbax na mi yaakaar nañ ne loolu du diine du diine mbubu kenn du ci xool nit suppame moo fi dàqa solu waaye buñ ko dindee fu ñu koy dugal mboq moo fi ëpp yére buñ dindee yére yi fu ñu koy dugal kon islaam du yére inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala walakin yanzuru ila wa amalikum kon mbokk yi xëccoo bi nga xam ne tey moo am baynahum seen diggante diggante ñu njëkk ñaak ñu mujj ñi ak ñeneen ñu dul ñoom nekk lu jiitu ak lu teew lu ko waral mooy ñun ñii rek suñu pas-pas bu ñàkk wér waaye bu suñu pas-pas wéroon dinañ xam ne Aboubacar fu mu taxaw ci wax di wax ci diine kenn waru faa déglu Masamba ak Mademba Abdoulaye Ibnu Abbas da doon wax ne dama yaakaar ne léegi asamaan këpp seen kaw ma naan leen yàlla nee na yonent bi nee na ngeen naan ma Aboubacar ak Umar nee nañ moom loolu la doon wax ma yaakaar ne yéen da ngeen bëgg asamaan këpp seen kaw ma ne leen yàlla nee na yonent bi ngeen naan ma Aboubacar Umar nee na dégg nga ndeket mbir mi fa mu tàmbalee nit suñ ko nee yàlla nee na warul waratul wax yonent bi nee na suñ ko nee yàlla ak yonent bi nee nañ waratul wax Aboubacar ak Umar nee nañ suñ ko nee Aboubacar ak Umar nee nañ waratul wax ngóor ak ñoxor nee nañ ah mbay waaw Aboubacar ak Omar kay ñoo raw ngóor ak ñoxor ah oustaz wala ngóor moo raw beneen bi mooy an abud allaha ma jaamu yàlla la ushrik bihi shay gis nga moo tax chaque jour dama leen di wax ne ngeen jékki-jékki rek dégg téere rek ngeen daw téere bi wala ngeen daw borom téere bi musiba la benn waay dafay dafa abal benn mbokk julit téere bu tudd matinu diini l'islam matinu diini l'islam moom mooy téere bu ñuy tuddee kitaabu tawxid bi mu abalee mbokk bi matinu diini l'islam mbokk mi yóbbu ko rek faafaam daal di xotti téere bi këraj këraj ne ko téere bi borom mu ngi safara nga koy jàng mu ne ah papa xawma ko woon mu ne ko xanaa xamuloo ne ñii safara lañ jëm ñii baaxu ñii ñoo bañoon yonent bi waa ji daal di ñëw ne borom téere bi ah téere bi de sam papa xotti na ko xotti yu bon sax yu dangereux mu ne ko lu tax mu ne moom dafa gis tur bi ci kaw rek mu xotti téere bi mu ne borom téere bi baaxul Muhammad ibnu Abdul Wahab la te baaxul moom ngeen dégg nit ñi naan wahaab yi di wahaabi la bu njëkk ba loolu lañ doon wax mais tey dañ naan ibaadu la tur bi changé moo changé léegi borom xam-xam boobu mu xam ne ñii xamuñu merul ci téere bi ñu xotti dafa dem jëndaat beneen téere mu dindi couverture bi mu ne nii couverture bi ba mu kii mu buddi ko mu ne ko waa léegi jëlal bi bii moom baax na kii du Muhammad ibnu Abdul Wahab mu bàyyi rek fi téere bi bindi i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin taalluma hazihi al masail mu bi jël lool rek mu indil paa bi paa bi ne voilà nii la waaye nga may indil téere yéeféer yooyu paa bi jàng téere bi moog doom ji di jàng di kontaan waaye li waay yow si alhamdulillah waaye kii dégg na diine kii borom xam-xam a ngi nii waa ji bàyyi leen ba téere bi digg waa ji ñëw nuyu si leen waaw naka seen téere ba paa bi ne wuu téere bii nga ko jox mooy bu baax bi yow mais bi nga ko joxoon baaxul boobu dafa weddi mag ñi mu ne ko ban téere laa ko joxoon mu ne ko téere Muhammad ibnu Abdul Wahab nga ko jox da ngaa bëggoon mu nekk wahaab bi moo tax nga jox ko téere bi mais bii mooy bu baax bi ndax bii moom kii daa dégg diine kii borom xam-xam dëgg la alquran hadis alquran yàlla nee na ba pare wa dalil xam nga Muhammad ci ci matin diine l'islam lum la indil daf la indil wa dalil qawluhu taala wala wa dalil qawlu rasul moom lépp dalil la la indil bàyyiwu la dara parce que loolu la ubbee téere bi waa ji jékki-jékki ne góor gi pourtant même téere bi la de mu ne comme moom même téere tey mënul nekk mu ne ñoxeet cartable am ubbi daa di génne téere bi nga xam ne dindiwul couverture bi mu ne ko xoolal bii waa ji xool ne ni couverture bi première page deuxième gis li muy jàng nekk ci mu ne waaw léegi yow téere bii nga ñu jox ana couverture bi mu ne dama ko dindi ndax su ma ko dindi loon doo jàng téere bi ndax da ngay weddi te xamoo mu ne mais man suñu sëriñ lu mu doon wax moo ñu waxoon téere bi baaxul fii lu ëpp loolu la lu ëpp ci nit ñi loolu la bul digg luy bul dem ci ñee fii bëri na ko fi jàng ci da ngay dem ci Oustaz Faye demal rek ah wala jigéen ñaa ngi ni ah yaa ngi ànd ak ñoom di jàngi baax na demal wax leen yéen a ngi ni toog wax ñu leen ko yaagu ñu leen ko wax damay jàngal benn jigéen université la nekk étudiante di def géographie ma jàngal ko ni ma ñeenti weer ma xëy rek indil ko aaya hijab ni ko liiral en français fekk dañuy waxtaan ci muraay ah nangam nangam nangam nangam nangam ma ne ko am ngeen kaamil ñu ne waaw ma ne ko indi ñu indi ma teg ma dóoral ko aaya hijab mu liir mu xool yaay ji yaay ji xool ko mu xool paafa ji paafa ji xool ko mu ne waxoon nañ ma ko de waxoon nañ ma bala nga may bàyyi def ma ibaadu gis nga mu ne waxoon nañ ma ko bala nga may bàyyi def ma ibaadu ah nit ñi dañ lay wax léegi nag xam nga loolu loolu mooy problème ñu ne ñu ne mooy te ndikul kii dalay def ibaadu nga ñëw sa première dars rek nga indi dars ibaadu nga indi dars muraay du day bañ da ngay romb yooyu ñu lay tuumaal doo ci sax wax di dox dox bi waaw di dox dox bi waaw di gas kàmb gi rek moom nga ciy dugal waaye da ngay gas rek di waxtaan waxtaan bi nag gis nga bu pax mi xóotee moom mooy tëb na cëpp ci biir te doo ko ne dugal loolu mooy wax bi mais première dars rek suñ la nee nangam nga ñëw rek olof yi nee nañ ko ñuy tuumaal dëmm muy soccee yéeli liir nit ñi dañuy daw ça le problème il faut ñu am hikma il faut ñu muus il faut ñu xam fu ñuy jaar nit ñi waaw nit ñi dañ leen war a yóbbu àjjana te bëgguñoo dem da ngay def ndànk xam nga àjjana doo ne kenn àjjana laa lay yóbbu mu bañ pourtant foofu lañ jëmee nit ñi mais nit ñi dañoo bañ da ngay def ndànk ndànk ndànk ak ñoom bu waa ji ñu bu buntu àjjana nag ba seen immeuble yi muy tàkk li ci li ci des dootoo ko diri. yow sax boo xefee moo lay njëkk a dugg moom waa jooju kon mbokk yi li tax ma bëgg a wax foofu mooy téere yii ñu ñuy tere nañ def attention téere bañ ko commencé jàng ba fii gisu leen fi waa ji wax loo xam ne dafa opposé islam dégg nga mu ne abudullaha damay jaamu yàlla laa ushriku bihi shay duma ko bokkaaleeg mukk istijaaba li daawati llahi ala madaari risala wa rusul damay wuyu yàlla kemak ñi yàlla yónni ci message yi la tax ñu ñëw loolu dama koy wuyu yàlla lan moo tax yàlla yónni yonent yi mooy walaqad baasna fi kulli ummatin rasul an yabudullah wajtanibu taaxut yàlla nee na xeet u nekk yónnee naa leen yonent pour nan jaamu yàlla bàyyi bokkaale loolu moo tax man damay jaamu yàlla du ma ko bokkaale ndax wuyu woote yonent yi yonent yi ñoo woon nit ñi kaay leen ngeen jaamu yàlla bàyyi bokkaale kon ku ñëw wuyu yonent yi nga wuyu loolu mooy sunu darsu tey incha allah ñoo ngi koy yemale fii mu nekk fukki tombe ak ñett suñ ñëwaatee incha allah ñu jël fukk bi ak ñett bu soobee suñu borom fukk bi ak ñaar lañ jël bu ñu ñëwaatee fukk ak ñett bi la ñuy jël asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله. آه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله